bisimillahi rahmaanirahim alhamdulilahi rabil alamin barke borom Tuuba noo ngi sant yàlla bu baax tey nuyu mboolem kiy teewlu Mouride TV ñuy sant bu baax ci invitation bi ak ànd ak yéen émission bi ñu ngi sant sëriñ bi bu baax ci ànd ak yéen liggéey bi nga xam si ne mooy wàllu taalif bi ñu yëngu incha allah xam naa moom lañ mooy li nga xam ni sax moo tax ñu ñëw ci bërëb bi ngir jàllale fi ay quelque xasida maanaam ay taalif yo xamni len li wala li ci ëpp ci suñ jubaale jëm len li jëm ci li nga xam ni mooy yeneen i euh, bu ñëk bi dañ ko def ci Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulahi wa Xadim Rasulihi ba ja toppaat danañ way ci dimbalanté wa jé toppaat ñu waat Serigne Touba euh, ba jé toppaat ñu way ci élection yi nga xamni ne moom lañ génn ba mujj bi ñu dajawaat ko Serigne Touba kon non lañ ko fas yéene defee bala loolu ñu def nuyo bi nga xamni ne moom la ñu baaxoo xamee euh, ndax dañoo wax ni saxaar bu jubee ci da fay corner ñun dañuy way euh, kon nañu nuyu ay bayit ay way pour xam ne waale ki nga xam si ni mooy waxtaan ak yéen wala bokk mooy bëgg ànd ak yéen li nga xam si mooy taalif yi ñu defoon ko ci baxru ñu ko waxoon asalaamualeykum ci baxru ñu ko lay napp jàpp jën ya di toggit firin mu dàq ab sëpp gaañi bis dañu maa woo ma déplacé dal dikk naan ma yow dañu lay dégg wax ñu yaay kan man ma jug naan leen nag du am belam naa fi bind man ma jug naan leen nag du am be nag naa ci bind am nu yoo rekk nag wax fi may kan du jëri ndënd kodde looy sama tur man de taa i sama dëkk bëgg leen a waral man ma sañ ca tey daati dikk te ca dañu may woowee jundiyul xadim dëgg teg ca tam dañu may woowee jundiyul xadim dëgg loolu nag li ko def bàmba mii ma gëm te muy dëgg am na ñun dañu naan ma de woykat nga bu mag dëgg ma waral ba ñu may woowee shaa'irun te day dëgg yàlla mooy ki dogal man ma aay ci way ku may dëkku jël defet nanu may maytu daay rëkkee te daay mbëkk ndaxte way dama koo jékk baxru yépp lay bind am na ay bajara am na kur kundung kundung kundu bii jataay dama koy toj mu xar ni man li may bind neex na saf na xorom yow tëggin wi dàq am ndënd moo waral ba ma naan gaañi tey jiima tax ci ripp ndaxte man fu ma génn nit ñu naan ko de nooy ne népp uskutu écoute vous les antumites def tacc ndaxte wayu ku sàggan ba xeb rek dana rëcc yëngu leen tema leen indi wayu mar sëkk wayu nag dikkagul li nuyoo la rek doyna sëkk sukuran merci suma cenk yu bukkan bipp li nuyoo bi la rek gaañu baax ñi laa fi doon bipp ginaaw ba ñu nuyoo ba pare kon ñu jàll ci xasida yi nga xam ne moom muy bu njëkk bi ñu defal ko Sëriñ ci Baxrul Basit ñu waxoon way naa wayaat delluwaat wayaat fi ahmaduna Cheikh Bamba Abdul Xadim duñ mos di dañ di la way way naa wayaat delluwaat wayaat fi ahmaduna Cheikh Bamba Abdul Xadim duñ mos di dañ di la way way laa nu war na nga daan def suñ yónneen ba di jóor di tagg ak di ko kañ ba mbégte mbégte lu rëy yaa ba mu kon way la war nañu ñun ku mënta way na la wax jaajëf ni jër nga lu rëy yaa way yónneen ba mu bég kon ñëpp a war di la kañ ku tawai way na la wax jaajëf ni jëf nga lu rëy ku mën na way ku mënul nay wax la jaajëfe kon cheikh bamba ahmadu na nee nañ la jaajëfe day sigil nga lislaam ji tey yaay waaju ñàkk moroom lëndëm gu rëy gëfi woon sa leer gi suul na ko tey yaa mbir mu ñàkk moroom yaa man si ñett yi fop yaa man ci géej gi le fop tubaab bi xam na day yaa man ci jéere ji fop man laa xiraagale fop yaatal nga na ji tey bur yàlla yàlla na la fay tubaab bi tax nga mu xam xar baa xaman xarimit sëriñ bi kenn la moom bur yàlla seede na kay yàllaa ko may la mu yor du jël ko ndab ba mu fees won koy xewal ya mu yor sëriñ bi jël sa lu doy am na ci may yooy da nee bis seen ci lañ ko di xam am na ci may yooyu da nag teg nañ ci bët yi la tey jasaaka rabbuka yaa abdul xadiimi jëlal wii way damaa la ko way wi way damaa la ko jóor yàlla naa fi sax di la way jasaaka rabbuka ya abdul xadimi jëlal wi way damaa la ko jóor yàlla naa fi sax di la way loolu mooy way yu njëkk yu ñu defoon si Ahmad Bamba bi ci toppaat ci ba ba ci ci li muy baxru mutaxaarib mutaxaarab la woon ci dimbalante comme niñ ko waxoon dama jug ci jël jëm jumaa jay julli dajeeg ndaw su toog jaax léggan ni bëtam dama jug ca njël jëm jumaa jee julli dajeg ndaw su toog jaax leban nii gëtam di yelwante naa kër gëtus nekk fa sarax leen ma ndax tey damay toggi ñam ca laa gis taawun gi buur yàlla wax ci xuraanu téeréem bilam booy xikam ma wut bant xat sot fi daa wut xalim di wax ñépp nañ dim bu ndaxam ku yor nopp tey diglu digloo ma xel ma digteel ko ab soññe bu làmbooy xikam sama soññe tey jii damooy dimbulaan te ci woy wu neex dàq ku laa ko lëm te man ñetti xaaj rek laa koy defal mu leer naññ nib jan te dàq lëndëm ma tëj lef yi te aw lef indil la wan laaj moom la bindante am ma tëj lef yi wan lef moom la dimlante am bu lislaam ne woon ak garab dàtt beey taawun bu deewee mu ñàkki caram ni bur yàlla moo wax na ngeen dimbale te yónneen bi wax kook sëriñ bi ñu gëm ma leeral la koy dim bu lee di def ci ab tënk boobu la na mboolem xikam te mooy dimbale ci ragal ak jubal te mooy tëj lu ñaaw nag lu ban bul ca jëm te yéenante aw yiw di laabiire ak yëram kuy jullit yow di wuññi meram alal ji la buur yàlla la jox dee ci jox ña seen po ña seen poos woyof waa ju laaj ña ko am alal ji la buur yàlla la jox dee ci jox ña seen poos woyof waa seen poos woyof waa ju laaj ña ko am sa ndey bi ngay joxe yow mii fexeel ba càmmoñ bi bu mu yëg ko nëbbal mbiram sa kàttan gi it say xarit dee si dim mbulee waaja buur seet de yaram te bul fekk aw fitnaat nga téye say loxo fayal ay wa kuñ nga jox ko dëggam na dimbale dimbalee ci na it ci tam xel mu ñor di laa biire way gàtt xel muy xalam ki fi dimbale rekk kalaqi njariñ boroom maas ëllëg ñu naw aw yiwam faman kaana fi aw ni xabdin bi dee jox ko lum it te woo sig dundam ca foofee la bët set mayoor saay loxo ci saa jiba jébbal ko junni dërëm ca foofee la bët set ma yor saay loxo ci saa ji ba jébbal ko nii dërëm mu may sant mu may sant mu may sant boo leeg di ñaan naa ma ma jox tey na buur la jox lay ngërëm mu may sant boo leeg di ñaan naan ma yaa ma jox day na buur san na buur aar la jox lay ngërëm ba ñaanam ba noppee ci laay wax amin ñu far tàggatoo moom mu dem man ma dem ba ñaanam ba noppee ci laay wax amin ñu far tàggatoo moom mu dem man ma dem ci sama bin dukaay daal di ñaan ku fiy dimbalee yàlla na buur duy ndabam salaatan salaaman alal mustafa maal aali feeg dim ngi am salaatan salaaman maal alal mustafa maal aali feeg am kon loolu mooy li nga xam ni xasida gi ñu defoon ci dimbalante kon bi ci toppaat mooy bi ñu def ci Serigne Touba comme la ñu waxoon rek Serigne Touba moom dana ci saf sàpp ci jataay bi comme jataay murit la ñu defoon ko ci baxrul mujtas moom it gàtt la waxoon in jussatil xarakaatu mustafilun failaatu xadim rasool ma daan def di bind way di la jooru tey laa ko gën di man nag ni ma ba ma waaru xadim rasool li ma daan def di bind way di la jooru tay laa ko gën di fi man nag ni yaa ma duy ba ma waaru ku way la raw dama koo gëm ni way la tax na ma nuuru ci lam bi way te di bàkk te kenn jugul di ma sóoru duy nga ma man duy nga ma fees na ma dell man maa ngi sant ka jaayu du kët de jar nga ko bàmba suñu xol yi tax nga mu tooyu bàmba jar nga ni jaa jëf du jar nga di jaayu sa tur yi fuñ ko di dégg jaral ñu mbëkk ka dóoru cheikh bamba abdul khadimi topp la rek ka da wóoru ku topp bamba du jàmbat doyloo ku def ko du wóoru ku topp bamba du jàmbat doyloo ku def ko du waaru ku topp bamba du jàqi day mat ba kenn du ko sóoru bamba ma doy ku ko doyloo doyloo nga sang bu wóoru du maasu ñiñ ña ka jiitu gaynde du bay te du siiru réew mi pamaase ko jox cër tuubaa ba ndar ba ndakaaru bamba waxul dani tekk xulóowul it te du xiiru te moo ne fees na ni dell kum toogandool di nga waaru te moo ne na ni dell kum toogandool di nga waaru kum di nga waaru ahmadu rekk di waaja sëriñ bi rekk di góoru ahmadu rekk di waaja sëriñ bi rekk di góoru nañ jéem a rey ko te ñaanal moo gën a gaaw gën a wóoru nañ jéem a rey ko te ñaanal moo gën a gaaw gën a wóoru loolu mooy bi ñu jëmewoon ci Sëriñ Tuubaa muy ñetteelu xasida bi bi ci demaat comme dañu duggaat ci beneen fànn mooy ci élection yi nga xam ne moom la ñu bi bii jàll de ci sant euh, ñi nga xam ne ñoo doon candidat yi ak di encouragé di leen encouragé di encouragé ki nga xam ne moo jël li nga xam si ne mooy ndab li ci Baxrul Bachir ñu waxoon alhamdulillahi bañ noppee si vote yi leen ndax ku nekk xam na de tey fa mu féete ak ko ka man alhamdulillahi bañ noppee si vote yi leen ndax ku nekk xam na de tey fa mu féete ak ko man jàmm de far na ni ñooy ku nekk far na de dal réew maa ngi féex na di lool bamba ji maase na kay bamba ji maase na kon bur yàlla moo di dogal kilee di def li ko neex xanaa di ñaan ki mu fal nay daa di doon ki fi gën teg ca di encouragé nag ñeenti ñi des te di wax nañ xam ne yàlla de moom mooy xool lu neex mu ni kun jaaraama kon ñi fi doon jaayante jiite ñu tey seen lim ba tuuti na lool juróomi nit la nu woon ku nekk wan nga nu jom jom paasewul nga ne yow jiite de metti na mais saam réew jaral na ma man jiite de metti na mais saam jaral na ma man xam nañ ku nekk ci yéen yéenim de moo di liggéey bur yàlla yàlla na fay yéene ku nekk ci yéen njiit mooy li mënta ñàkk mais ku nekk am nga de jom muy idi mbaa di isaa sonkoog ma dikke de yéen yéen ñeent ñépp di gor wan ngeen ko réew mi da tam wan ngeen ko réew mi la tam waaye de yàlla la soob mu bàyyi nag ku fi woon xanaa di masawu kon yéen ñeent ñëpp de nag teg se de filsete tam ki jiite ak di ko ñaan kon kon kon nag sëriñ bi sàll yow ndegam falaat nañu la xam nga li réew mi bëgg nag yàgg nga jiite doo fi gan yàgg nga jiite doo fi gan yàgg nga jiite doo fi gan réew mee la fal de wóolu la yaakaar yi kon bu ko tas njortit rafet nañu ndax wax dëgg jaar nga ci yoon jot nga liggéey ci lu wér waaye du tee ñu di wax waaw góor yooyu suba teel xamal ne soññi la kon waaw góor yooyu suba teel xamal ne soññi la kon dinañ la ñaanal dina bur yàlla mottali naal yi nga naal te nga doon si réew mi njiit li fi gën dinañ la ñaanal de nag bu yàlla mottali naal yi nga naal te nga doon si réew mi njiit li fi gën إن البسيط لدي هي يبسط الأمل مستفعل فعل مستفعل فعل بني تجي موتي دس تسيا أحمد بامبا تي بحر المجزورة جس وخون قد دي جوغل خليم جلال لو خم تي بامبا وخل تدف كو ديل ديلو نجوكل نمو يلي وار كو دي وخ كوكا دي عبد الخديم di maam ci cheikh abdul hakim ku dul yoneen bi moo يونين لن يحمدون خديم moo sàkku sëñ bi doon ci moom ku weddi li yëral mbindam raama rasul la sëñ bi wax raama rasulu min ilaa kaw nii xadimu abdallah xam nga ni mus mooy abdallah mooy tur wa dëgg siiw na sax mooy mbër ma dem ga mokk naa kiri di xeex la diinu naa lii waaju naan de yomb naa na dem fa xeex ndem góor la sax sëriñ bi mooy ki may la tey jàmm da kon bul naagu bay xeddeeku dem fa neen di woy ba far si xol bi yàqu sax nga dem ba ñëw di weddi ngir jubla ca yàq lim saytaane man la yow ba far yóbbu la ngay mujj ak tarax gëmal sëriñ bi tey dëggal mbindam yi lee loo gis gëmal ku mel ne moom doo gis wëral duniyaa ji ak bar sàq sax koo xam ni ko yëri mbindam te ab xolam tëqul lëndëm xaraf ya day yëngal dëndëm xolam ba mel lu lapti ndax koo xam ni buy bind di gis yónneen bi ree yeneen bi ñëw di ree ba sës ko jël mbindam ma daal ni tas ni gis ne luñ ko mës la wax koo xam ni buy bind di gis yónneen bi ñëw di ree ko jël mbind ma daal ne cas ni gis na luñ ko mus la wax sëriñ bi sëriñ bi kon du mbër mu ndaw ni bam taree gaa ñëpp a daw ñëpp a ko xam te dañ ko wax duñ sant mi xanaa di wax nan ñëpp a ba teg ci sax di weddi ay mbindam lu tax lu tax ñu weddi jar di wax ñëpp ñëpp a ngi weddi ti ndaw yi jàngi woon ba daal di ñëw ak seeni xel yu gàtt ndaw ñu mel ni ñuy ñëwar te wax ni yow amoo xam-xam bu doy doo wax ba kenn daat ni la cay xanaa xanaa xamoo baa ñu doy ay waay mu ñëw bàyyi wax ni yaa ngi yor da bopp ndaw yërëm sa bopp gën ci yow boo moytiwul des na la caw ay cawi caw te kenn du wax yow mii di weddi loo di jaay bu dee xam-xam la nag sa waay am na fi ñooñ ñoo gën la ay te weddi wuñ li sëñ bi wax kon kon lu waral iñaan la am ak xol bu jeex ma tee nga gëm ni dëgg ngi ñépp a ko xam ahmadi mii ko bañ torox jërë ngeen jëf loolu mooy li nga xam ne moom lañ amoon yéene te eh, liñ amul yéene sax ëpp na waaye loolu lañ mënoon a jàllale ci ay xasida ci ci télévision Mouride TV ñu ngi ziar ñëpp di jégal ñëpp wa ma zalik ala llahi bi aziz jërëjëf borom Tuubaa